lii sama yëg-yëg ci rafaat yi man lu baax lay wër man dama nettali waaye lu baax lu ma yëg dana siiw rafaat yi télé la boo xam ne ñëpp a ko war a suivre ndax képp ko ko seetaan doo réer te jamono ji dafa nëx ñu bari réer na ndax yi leen di wan amalu leen njariñ kon na ne suivre Rafah TV mu di leen wan loo xam ne seen diine rek la leen di wan ak Serigne Touba kon am nañ mbégte ci seen jotaay bi ngeen def yàlla na ngeen ko def téeméeri at ak ñaar fukk yu tàmbali déwén loolu daa nga ma fi indi man daal lu baax fu ma ko gisee rek danaa ci dem lii rek ma indi Moustapha sama waaj